force restera à la loi. Laquelle loi est aujourd'hui la loi de Macky Sall et de sa coalition Les forces de défense et de sécurité, c'est les forces de défense et de sécurité de Macky Sall. La justice, c'est la justice de Macky Sall. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que nous puissions aspirer à la liberté et à la démocratie Il suppose la contradiction et le choc des idées. Et c'est pourquoi j'appelle, je lance un appel à tous les Sénégalais. Jamais Levons-nous comme un seul homme et faisons face à Macky Ce que les jeunes ont commencé à faire sur le terrain. Et je les encourage vivement à résister. Surpassons nos peurs et descendons tous, comme j'essaie de le faire tous les jours, parce que j'ai l'habitude de dire, je, suis, veux toujours être le premier à donner l'exemple pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux. Nonobstant vos inquiétudes à chaque fois que je sors, nonobstant vos nombreux messages, je voudrais que plus que jamais, il nous faut prendre notre destin en main. J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement. Parce que tant que ces quelques manifestants, Maki pense pouvoir avoir le dessus. Mais personne ne peut faire face à un peuple. Et si le peuple sort pour dire basta, je vous assure que Macky Sall reculera ou quittera le pouvoir avant la fin de son mandat. Et j'en appelle à un surtout de cette population-là, qu'on comprenne que ce qui se de nos enfants et il est entre nos mains. Et je voudrais terminer par cette communauté internationale que le président Macky Sall essaie d'amadouer. Il vous a pendant longtemps fait croire qu'il était un président exceptionnel. Des cabinets ont été payés à coût de millions et de millions d'euros ou de dollars pour faire sa propagande au niveau de la communauté internationale. Mais le meilleur baromètre pour connaître le travail ou pour apprécier le travail d'un président de la République, c'est son peuple, son propre peuple. Et quand vous voyez comment ce peuple-là court derrière l'opposition, derrière nos caravanes, comment ce peuple-là rejette euh, Macky et son gouvernement, parce qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Le chômage a atteint des niveaux extraordinaires. Jamais la justice n'a été autant instrumentalisée pour liquider des adversaires politiques, des journalistes, de la société civile. Tout le monde se sent en danger dans le résultat économique est catastrophique euh, en dehors de quelques infrastructures construites à coût de milliards de dettes. La pauvreté atteint des niveaux endémiques et chaque année, le Sénégal fait partie des pays qui sont touchés par l'insécurité alimentaire. Et c'est pourquoi ce peuple est le meilleur des baromètres. Pas les reportages payés à coût de millions d'euros. De, de, et demander à ce peuple aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense de Macky Pourquoi on restreindre la liberté d'Ousmane Sonko Parce que si je sors tout de suite dans la rue, il y aura attroupement. Pourquoi ce peuple-là tourne le dos à Macky C'est parce qu'il a lamentablement échoué. Et ne lui reste que l'arme de la violence, de la justice instrumentalisée, de la violence des FDS pour essayer de terroriser ce peuple. Ne le suivez pas dans cela, parce que c'est vous-même qui nous vendez toujours le discours sur la démocratie et les libertés. Et que dans un pays qui a connu la liberté et la démocratie bien avant son indépendance, que le règne de Macky sonne le glas de cette liberté et de cette démocratie. Sénégalais, levons-nous et battons pour notre liberté, pour notre avenir. Je vous remercie. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi fe nangu bu mu